bu du def sénégalais tok une semaine wala un mois ñu ne ñu ngi regretter bu ñu xamone <laughs> la ci sénégalais ba muy def son retour là son comeback mm. ba muy ba mu euh, euh, euh, Versailles France tok fallu lu mat ay ngir ba muy ñëwaat Sénégal gis nga. ful bu mu nit ñi ne bu ñu xamoon dañoo regretter góor gi bu ñu xamoon ñu la président bu ne lay bëgg gis nga la def dafa dem jël avion dem moom tamit day toog giir ñëwaat gis nga lu ma def ci basir Diomaye Faye bu fekkee basir Diomaye Faye faxasul décret boobu seen nomination la du mën a fay salaire comme ça Macky Sall day toog fële 6 euh, euh, mois wala 1 an mu ñëwaat def son comeback gars yi na ko ah sal ngaari lam toro dañoo regretté lu tax ñu bàyyi la nga dem bu ñu xamoon ñu maintenir la ci lam toro bu ñu xamoon sa ñu bàyyi la ak sa troisième mandat bi président bu ne ñoom c'est-à-dire que c'est l'ancien système l'ancien système ñom loolu lañu ñuy yàgg a fonctionner moo tax Bassirou Diomaye xaw ma kan moo ko xelal de hmm. il a très bien fait d'annuler ce décret là te yamul ci loolu de yamul ci loolu de la réduction de de de de la cour des comptes war na ko xoolaat les rapports de OFNAC là war na tegwaat ci table bi na ci bi. les fonds Covid 19 là parce qu'on a vu des anciens ministres commencer di gaawantaloo di dem of of nak di supposé non dama dem retirer fiche dama dem retirer formulaire. Mansour Mansour fay eh dafa wara a ci table bi. basir Diomaye fay ñu koy xaar ci ba mu les prêtres non là ñew les prêtres l'ont Khalis bu ñuy sàcc entreprise yi immeuble ñi tabax fi ci ndakaaru fo tourner nga gis ay immeuble foo sandi bàcc mu tak ci corniche bi yeb tabax nañu littoral bi ba mu fees del ay immeuble ñoma ba paré def ko ci ay tour jambour les prêtres non la ñew leen ñew leen signaler parce que non non soyons sérieux soyons sérieux dans ce pays mënuñu bayyi ay nit ño xamanté bark ndem moo njaay mënuñu jënd café ak sucre tay almadi lañu dëkk bo laajé ñu ne titre foncier la ah titre titre foncier noonu lañ koy amee au Sénégal titre foncier noonu lañ koy amee au Sénégal almadi boo xamante ne le mètre carré coûte presque euh, combien euh, doo xam nu kii ay nit yu tekkiwul dara démb barke démb Ndiaye fii lañ doon topp ay cumukaay mbër di leen sotti ay mbër tey boo demee almadi ñu ne ñoom ñoo fa dëkk immeuble bi ak immeuble bi ñoom ñoo ko moom boo ñëwee ci banlieue bi kasaalika boo demee Mbour ci euh, la côte ouest. Hmm. ñom ñoo fa dëkk. mais enfin ñu né aéroport bo xam ne barki Demba Ndiaye ama seen ama ñoom ama seen la ñu doon ci euh, euh, soti ay cumukaay. mais enfin ñu né aéroport mi ngi en euh, mi ngi en hein? mi en surveillance maximale gis na sax si Babacar Touré manjuk mu né Sonko su paree mën na ko jox ben mën na ko xamante ben liste bo xam ñi dañu paré pour génn dëkk bi exactement Arfan. non man waxuma fofu hmm. dama né fofu tout le monde je crois tout le monde est d'accord pour ça. nañu tëj aéroport bi tëj frontière yi. ministère yi toog fii ñu chambar leen ba paré bon, boo defulee dara fula la neex ci adina demal man je suis d'accord comme ça man je mm. suis véridique. Mm. seigne Fallou bép ministre waxuma ni ministre yi yëpp a waxuma lolu dé waxuma lolu dé mm. dama né dañoo wara toga ngum. ñu léral ñu léral ñu càmbar ku ne bu fekkee laalewoo ci defo dara ñu delloo la sa yëf. né la sa passeport baa ngi nii fépp foo bëgg dem ci adina demal. ba pare retirer suñu passeport diplomatique yi ah paré nañu service ministère ni ak sen sen sen sen coro yi ni paré nañu sen service. nañu coro sen coro dañuy am. xawma de dama ne nañu retirer képp ku am passeport diplomatique yi nañu dem ci les annales là de l'état du Sénégal ñu xol les ayants droit de passeport euh, diplomatique. nañu jël tous les noms képp ku nañu top la delloo ñu suñu suñu passeport diplomatique parce que il y a de nouveaux ministres dañoo war a ñoom bénéficier ay passeport diplomatique ñoom ñëpp nañu récupérer seen passeport diplomatique comme ça ku bëgg a tukki demal nga rende visa buñ la ko may ambassade buñ la ko may nga dem nañu récupérer suñu passeport diplomatique man wax alors enfin ñu ñëw exactement si euh, li nga xam euh, euh, un gouvernement de satisfaction et de frustration d'une part Euh, avant dañuy ñëw tout d' abord si féministes yi laataa ñoo ñëw si kaw Dame Mbodj Mimi Touré ak ñoom Maimouna Bousso et consorts alors féministes yi nag attaqué neen Ousmane son at fond jàpp ne ni ñetti ministre wala kon ñeenti ministre jigéen rek lañ si am noo nak na ko daal di jàngatee est ce que am na équilibre parité. Euh, sëñ bi xam nga parité baax na lool parité dafa baax lool mooy maanaam. lu lu góor mën. jigen mën na ko loolu mooy parité baax na lool man je suis d' accord avec la parité. Hmm. je suis d' accord avec la parité sëñ hmm. Fallou. Hmm. dégg nga. je suis d' accord avec la parité. mais parité nag day day day day day day maasaale ak compétence dama bëgg sénégalais déglu ma bu baax li may wax dama ne parité baax na macha allah.

vous croyez que dinañu mën respecter respecter parité boobu je pose la question aux gens je pose la question aux gens parce que parce que dañu gouvernement rupture la bu de ci compétence transparente responsabilité dama vous bu que am nañu jigéen au Sénégal waxuma ni amul de attention déglu vous ma bu baax waxuma la ni que amuñu au Sénégal ay femmes yu compétent waxuma loolu de dama ne leur nouveau régime l'Union ñu qui est à la tête de ces institutions là selon les CV que ñu jot parcourir mm. il y a des femmes de haut calibre ñoo xamante ne fu ñu tabb góor nous mën faire des est-ce que ñoom ci s'en CV nous ñuy parcourir Amna, ces compétences là en dehors de ces de ces femmes quelques femmes qui ont été nommées est-ce que amna hmm. ça aussi c'est une question qui qui doit se poser. Hmm. nous jël une femme parce que nous bëgg respecté respecter parité bi ñu même bu nous compétences bi nañ ko fal les rek même bu les compétences, bi ko justice eh ki eh, awa awa Fall ñëwal même bo amulé compétence yóbbu leen ko enseignement supérieur am soxna lo kay bo amulé compétence bi yóbbu leen ko ci éducation bi aram choy kay amulo amo compétence yóbbu leen ko tourisme bi. Euh, Kumba Gawlo euh, kay euh, amo compétence. yóbbu leen ko ci digital wala culture. c'est pas comme ça. mais enfin, les féministes dama ne dama né féministes yi li ñuy li hmm, est-ce que le régime est éternel. est-ce que ce régime là est éternel. Le ñuy c'est pas un régime éternel à tout moment on aura besoin de changer te lii ay ministre quest la ñu mais il y a les postes de direction de PCA de l'ENEN, l'ENEN. est-ce que faut, mënuñu nous dugal jigéen yi Si nous talloo ak le nombre de ministres lu ñu leen ëppale fële yi euh, les directions est-ce que mënul nekk dans ce cas mu équilibré pourquoi les féministes là ñu bëgg a tàcc ñu bëgg c'est pas comme ça ça ne passe pas comme ça gis nga gouvernance Vous gouverner Ousmane Sonko Ça, peut-être foofu laa koy nawee wala Bassirou Diomaye Faye gis nga vous gouverner un état qui mm. s'appelle le Sénégal mm. réew bu Sénégal mm. gis nga boo koy gouverner da ngay jël sa responsabilité parce que loo monte def da ngay am ay critiques da ngay am ay attaques. Tu doo donc le si da ngay da ngay day day am force ñu lay pour un rien du tout man Arfan bini nii sax boo ma jógee directeur port autonome même si bobu la yàgg a rêvé de sëñ Fallou directeur port autonome bu Dakar la yàgg a rêvé nak waaw bay bay bàyyi ma wax ko en étant journaliste aussi yàgg naa rêvé man aussi man <laughs> directeur port ma def fa lo xamante ken musuko fa def ñom Cheikh Kanté yëpp laay déloger def organisation bu baax au niveau du port parce que c'est le premier bërëb bu économie Sénégal mom moy port bi maman may ma may ma ma égali xamna mom internet yi dinañ <laughs> sama xarit yi donc sëñ fallu exemple juste là joxe dama ne euh, munoo jël ay nit yo xamantene da nga japp ni sen compétence eggul fofu nga ne da nga len fay yobu, parce que da nga bëgg respecter la parité munul nek on veut bâtir un pays bu normal on veut bâtir un état sérieux on veut un Sénégal émergent djegal ma ci de bi ma tout ce programme Macky Sall moy manam su ma Sénégal émergent moy manam Sénégal bu développer ah, waxuma sen programme maintenant bu que dañoo nam Sénégal bu comme l'a dit comme l'a dit Abdoulaye mm, mm, mm, Sénégal buy ñuloo ak Paris wala Dakar buy ñuloo ak Paris voilà Sénégal qui brille voilà Sénégal qui brille comme Dubaï mais il nous faut des personnes compétentes que compétentes il nous faut il nous faut ay ay institution yu forte loolu yëpp bu fekkee da ngay daw critique mënoo ko mënoo ko mënoo ko def c'est que c'est que ñu ñëw si euh, si généraux exactement nous avons deux généraux yi nga xam ni dugg su gouvernement bi ñu bari japp neen c'est pour la première fois avant ñu gis lu ñu mel euh, pourquoi Ousmane Sonko copte exactement ces têtes qui ont euh, justement eu l'expérience si domaine bi nga xam ni jox ne len ko mais moy manam lu ñu waxoon rek la compétence les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Non, non, non, non. C'est une hein, C'est pas du clientélisme politique. Nous Ousmane Sonko, je dans Kafnako. Bala créé créer gouvernement bi. Dafane. Hein? Ah? Voilà. Dafane, nous sommes pour ñu voilà Wala ko sommes rejoindre la coalition pour ay seddo bouki. Mën nga dem nelawi. am. Parce que ñoom ils l'ont appris de leurs prédécesseurs ils l'ont appris ay nit yoo xam ne dañuy transhumer ne serait-ce que nguur buy waaj a jeex nga def taf taf transhumer de rejoindre coalition comme ça bu Nous falwee ñu ba ñu jox la ndombal tank. Ousmane Sonko ak waa parti am yàgg nañu ne Sénégalais Sénégal nekkul ben gâteau bu ñuy Sénégal du séddoo bukki mo koy doxal mën nga bokk coalition jomay président ñu falu ñu dem jëli ay nit yo il faut même pas de la politique wala ñu ci la preuve en est que gis ngeen ko ci ministère amna ay ministres yoo kenn c'est la première fois ñu xam len peut-être ñu bari doon sentu ay Guy marisanya ji <laughs> mon ami Guy marisanya hmm. mom peut-être son nom revient euh, plus ñi xaar ay Amit Aminata Touré ay Dame Mbodj ils ont été zappés non non ils n'ont pas ils n'ont pas encore une fois encore une fois encore une fois dama koy dëggal fii ci plateau bi dama koy dëggal fii ci plateau bi